mujj bi euh, ñu ànd ak oustaz oustaz waxtaan wi ci lan la yaa ngi koy annoncé sànq. waaw sànq yaa ngi may wax loo ci accident yi waaye boobu fekk na maa nga ca ginnaaw kii dugg tool. <laughs> <laughs> <laughs> ma daal di tarxiis man daal di joxe thème bi ne affaire yow ca Achoura waaye kon damay delloo si waat rek wax jële jaal euh, sunu mbokk yi nga xamante ne ñoo ci ñàkk seen bakken di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yàlla na yàlla xaare leen aljana waaye di waxoon aussi rek nag chauffeurs yi aussi na ñuy def ndànk nag te auto de transport nañu koy saytu di ko toppatoo di ko yóbbu visite technique pour éviter ce genre de problème tey daal ñu ngi fas yéene wax nag ci euh, xew-xew bi parce que ñu ngi toll ci tey mooy bi tasuan suba la Ashura euh, ak tasuan moom la olof di wax tamxarit mooy bis bi ñuy reere euh, suba la Ashura moom la ñuy wax tam ñarit incha allahu taala ci ñaar yooyu la ñu fas yéene waxtaane ci euh, ak lan mooy seen wàccuwaay ci ci diine. asi ah, ah, man hmm. mooy euh, lan moo ci euh, farata ak sunna ak care ji si boppam lan moo ci farata ak sunna. Hmm. dara du ci farata dara ah, dara du ci farata waaye rek am na lu ciy sunna. Hmm. mun ma dama dama naroon a tarxiis dara du ci farata dara du ci sunna mais dara. du ci farata obligation amu ci mm-hmm. mais nag am na sunna sunna mooy lan sunna mooy lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne def leen ko mm-hmm. walla mu def ko ñu gis ko wala ñu def ko ci kanamam njabootam di ko def mu teg ci bëtam noppi ca mm-hmm. moom la ñuy wax as sunna al qawliya mooy li mu wax ak as sunna al fi'liya mooy bi mu jëf nit ñi teg seen bët ak as sunna at taqririya mooy bi njaboot def ci kanamam mu jàkkaarloog ñoom na ca ceel loolu aussi sunna la. Mm. kon donc affaire bi am na sunna bu ci nekk. muy lan ndax yonent bi bi mu gàddaayee bàyyeekoo Makka dem Medina dafa ñëw seetlu ci mujjantalu année ba mu fa def xam nga duggantewuloon ak yahud yi nag duggante parce que euh, dafa am benn barrière bu nekk ci diggante l'islam ak yahud yi. Mm-hmm. ci dernière année ba mu fa des parce que dix ans la fa des def mu mu yëg ne. yahuud yi dañuy woor bésu ashura mooy bésu ëllëg mu ne leen waaye yéen boobu xam nga comme dëgg dëkk bi yàgg na donte bokkuñu diine xaritoo gi am na ak laabiso waaye lan moo tax ngeen di woor bés bi ñu ne ko bés bi mooy bés bi nga xam ne ci la yàlla euh, musale woon Moussa ak banu Israila ci Firawna Moussa duur yatam wi ci géej gi géej gi xar banu Israila ak Moussa ànd jàll euh, Firawna lab loolu moo wax na ni loolu moo waral ñu koy woor di ko bàkkee yàlla di wane suñu kontante ak suñu mbégte ci teraanga googu nga xam ne yàlla defal nañu ko ci bés bi mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ah bu dee loolu la de kon ñu nit danañu ko woor parce que man maa gën a yey ci Moussa ci yéen nahnu awlaa bi Moussa bi ah, awlaa minkum bi Moussa ñun ñu leen man maa leen gën a yey ci Moussa sama collègue yonent la yonent la man yonent la kon am naa ak moom relation bu ngeen amul ak moom kon donc ma ne dama koy woor euh, saxaaba yi am ci ñu ko ah yaa ñu waxoon ne yow mi yàlla yooyu yaa yaa ñu waxoon ne xaaliful yahuuda wa nasaara na ngeen fexe ba ni ngeen di jëfe na waroo ak ni yahuud yi ak ni nasaraan di jëfee kon boo ñëwee fii fekk ñii di woor bés bi nga nga ànd ko ak ñoom dafa mel ne dañ leen di toppandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ne ida kaana al aam al muqbil sumna al tasua wal asura fa lam yati al aam illa qubida sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nag kon nag comme woor nañu ko ren euh, pour nous différencier des juifs incha allah bu déwénee ñun nanu woor juróom-ñeenteelu fan bi mooy tey mm-hmm. ak fukkeelu fan bi bu ko defee am na bu ko defee am na différence kon kon sunna sunna la benn bi yonent bi def na ko mooy fukkeelu fan bi woor na ko benn bi en envisagé woon na ko kon dikkle na ko mm-hmm. cere ji ça n'a rien à voir avec <laughs> donte am na delluwaay nag donte am na delluwaay nag delluwaay bi mooy lan yontu yàlla nuux alayhi salaatu wassalaam abul bashar assani le deuxième père de l'humanité gaalam gi xam nga tëmb na ci géej gi cent cinquante jours cent cinquante jours xam ngeen ñaata weer la cinq mois la ndox mi euh, gaal gi def na ci kaw ndox mi cinq mois yoo xam ne diggante asamaan ak suuf lu fi doxoon lu nekkul ci gaal gi yàlla rey na la lu ne ci gaal gi rek moo moo moo moo mooy su mooy dundaat ci kaw suuf waaye nag ñu dal ci kaw benn montagne bu tudd Juudi wax nañ ne ca Turki la nekk bés boobu gaal gi dal Ashura la woon comme ëllëg insha allahu taala yonent yàlla noox daal di sant yàlla daal di ne ah tey bésu feet la kenn ku nekk ci yéen na indi lu mu desee ci pepp ci ci ci liñ doon dunde kii indi tuuti mboq hmm. déglu leen ma déglu li ma la wax kii indi quelque euh, ceeb pepp euh, quelques kilos de ceeb kii indi quelque euh, blé kii indi ñu indi ay xeeti pepp yu bari kii indi quelque mboq kii indi suuna kii indi saañu kii indi tuuti ceeb hmm. mu ne boole leen lépp ngeen def ko sunguf foofu moom kenn mënut ko def benn plat hmm. lenn rek moo fi mën rek boole lépp rek def ko sunguf lu sunguf ba noo fi mën def leen ko cere. Mm-hmm. cere jàngook. cere jàngook. cere yàgg na ci àddina tey ku ma déglu rek di nga xam saa su bari boo leen duñu xam fu cere ju jóge fii la cere ju jóge waaye nag waaye nag loolu tekkiwul ne. Mm. bés boobu ku ci deful cere am nga bàkkaar. Mm. sunna déedéet waaye nag def ko it nag wàññiwul dara. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne man wasaa ala iyaalihi wasaa allahu alayhi saaira sanati mhm. képp koo xamante ne fexe nga ba sax njaboot ñu lekk ci ba suur jour ji li des ci at mi yàlla dina la yombalal loo leen di jox. macha allah li ma waral ma ngi Kenan la dernière question. ñu yëkkati jotaay bi rapidement. alors euh, Imaam dama dégg ki fi toogoon invité bi fi toogoon tout à l'heure dama dégg mu ne am na benn dëkk boo xam ne bu bés bu jotee dañuy mbëkk ku nekk di gaañ sa sa sa bopp. Hmm. pour féete rek li nga xam ne mooy bés bi xaw ma ci naqar la wala ci bànneex la nag. donc loolu signification la signification bi lan la at wooru tay géet suba bi. donc euh, ñaan yi nga ciy wax ne yépp boo ko ñaanee. Hmm. Euh, euh, yàlla dina la ko defaral est-ce que loolu farata war dëgg la. ñi ciy gaañ seen bokk du fexe seen deret di ci tuuru mooy ñu ñuy wax ashia ashia mooy ñi nga xamante ni ñoom gëmuñu Babacar Sadiq toppuñu ko. Hmm. gëmuñu Omar gëmuñu Ousmane. Ali ibn Abi Talib ak njabootam lañ gëm parce que ñoom nee nañu normalement bi fi yonent bi bàyyeekoo Ali moo waroon a nekk xalifa bi parce que moom mooy moom mooy deretu yonent bi Aboubacar du deretam euh, Omar du deretam Ousmane du deretam ñooñu c'est des radicaux ñooñu nag seen ki nga xamante ne mooy moom la ñu gëm muy Ali ibn Abi Ali kenn ku nekk xam na ni dafa jaamaarloo woon ak benn xal kenn ci xalifa yi ko tudd Muawiya mhm. ibnu Abi Sufyaan euh, euh, euh, ibnu Harb kooka maanaam kile ko destabilise ko kooku déstabiliser ko alors Yazid Yazid di doom ci Muawiya Yazid moomu moo jaamaarloo ak sëb sëtu yonent bii di nu mu tuddati Xuseyn ray ko ray bu ñaaw dagg bopp bi ñu indil ko ko muy jubilé. loolu du muy jubilé kon ñi nga xamante ne dañ ne kenn waru ci jubilé loolu lañuy ñuy bañ parce que dañuy bañ ku toppandoo Yazid ibnu Muawiyatu ibnu eh, Abi Sufyan ibnu ca loolu mu defoon. mais ñi nga xamante ne ñi ngi ciy jubilé bu leen kenn bul jubilé. Ah. xam nga lu taxa gaalu yontu yàlla noo cent cinquante jours mu dalu kenn waru ko wane sa manifester sa joie. lu toll ne Firawna ak dooleem dàq Moussa mu rabal ko ca géej ga lu kenn war ci kon ki koy. oustaz ñi nga xam ne ñi ciy tuur seen deret ma ma ma yeggale foofu. Ah, dañuy dem flash d'information ah une minute rek ñu tëj ah une minute rek. waaw ñi ciy tuur seen deret. Mhm. ñooñu dañu wax ne seen sang bi seen sang bii nga xamante ne mooy moo mooy mooy euh, Hussein ñu tuur ci deretam ci façon bii kuy gor ci ñoom. bés bi sa deret war naa tuuru. jërëjëf loolu moo waral ñu dóor seen bopp ak di gaañ seen. jërëjëf oustaz xam naa ne di nga ko gën a yaatal ci yeneen i plateau ngeen baal ma tàggatoo bi yéen ñëpp maa ngi leen di jaajëfal. Euh, Mouhamed ma delloo la antenne bi pencum l'islam ah, euh, léegi-léegi ñu jël flash flash d'information bi excusez-moi après ngeen ànd ak sista Maria. ak ay ganam ci la mi journée l'avant-première mu ngi leen di jaajafal bu baax a baax. Mm.